fii passoir sonn taay di joboot xam ngeen ne étage bii ñu janool nii ku ko xool ku ne te dëkk ci koñ bi soo tëddee doo nelaw guddi taw bi bëri na ndox mu bëri na danger yi bëri na ci etaas bi jaan sax am na fii ci etaas bi jaan am na fii ci étage bi bërki déem bërki biig dañoo toog rek dal bi fàq courant bi da doon tàkk te joboot lañ yor ay xale ñun dañuy am soxla génn xale yi kenn mënu leen a téye dañuy am ay soxla dem nga nga nga dëkk ak ay nit nekk doomu aadama ñu nekk doomu aadama nga tabax bâtiment bu mel nii dem Dakar tëdd suñ la ooyee du uyu. yi daanu bii du tey rek de bii mooy deuxième fois boo xam ne am na fii ci koñ bi toog nag ba nit dee fi sapeur yi ñëw ak police ak gendarmerie ak su sous préfet euh, gouverneur dara jaru ko ci àddina wallu ca ba muy teel. waaye doo nekk ba circonstance am nga door a ñëw di wall ñun xuloowuñu xeexuñu dañuy ñaxtu di oo di ñaan dimbal di oote ngir yàlla ak yónnent bi ngeen ñëw dimbale ñu ndax bu amoon doole ba tey faj nañ ko. moom moom këram kenn xëccoowut ak moom kër mais bâtiment bi lañ ko mayatul bâtiment bi di fi taxaw sunuy doom di fi romb ak ñun ak sunuy borom kër. tiit nañ sonn nañ am nañ problème daal ndax ñun suñ kër a ngi nii. xale yi dañuy toog di leen garder démb ba léegi su étage bi daanoo rek étincelle yi jóg ñu ngi woo Senelec it Senelec ñu ngi koy woo ne ko fii ngi tàkk te njaboot ñu ngi woo Senelec dem nañ day laal fil bi ñu ngi ne da koy laal su ko laalee mu tàkk paa yi kenn dematul jumaa fajar loolu nag bu demee ba egg si foofu autorité Kaolack yi dégg ko dañoo war a jóg suñ jógu nag ñu jàll si leneen luñ am jël dem ci biti yëpp day màbb. day maam. soxorewuñ ko dara étage bi pour mu jóge fi moo tax ñuy wax ndaxte xale yi xamuñu dara ñun mag ñi mën nañoo moytu mais xale yi mën nañoo moytu nañ ñu ci jàppale xeexuñu xuloowuñ nag soxorewuñ ko dara dañoo bëgg étage bi jóge fi ndax démb bi fii dal bi daanoo courant bi dafa dagg démb presque waa Sénélec fi lañ yendu di defar koñ bi kenn amul courant nañ ñu ci jàppale defar ko suñ ko mënta daane ñu xool neneen nuñ ko defee waaye nañ ci jàppale dañoo yore xale nañ ci dimbale te fii nii am na ay njàppaan am na ay jaan numéro téléphone ma nga nii ñun na woowuñu ko wante numéro téléphone am ngi ay mbokk ma ngi fii waaw waaw Walfadjri ñëw na fi préfet ñëw na fi gouverneur ñëw na fi. wóorut gis nga escalier yi ni mu bàyyee nii gis nga xeer yi lang nañ ñu ci dimbale defaral ñu ko dañoo yore njaboot loolu rek moo ñu soxal leneen soxaluñ ko nañ ko daaneel ñu am jàmm ndax ñooñu bañ fi ñëwee léegi ëpp na fukki at ba léegi waxaatuñ fi dara. ba léegi ñu ngi toog di xaar soo gisee ñu jógaat nii nag comme démb ni mu def la daanu na barki demb daanu démb gis nga ko nee moo tax ñu jóg démb surtout bi mu dagge fii li courant yi loolu moo tax ñu jóg nañ ñu ci dimbale te yàlla ji tax